dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te wóor abonné leen ngir dara bañ leen raw kenn dootu ko laajte ci jàpp leen delloo ma samay 18 ans mooy seen aphrodisiaque bi nga xamante ni moo gaaw efficace pour seen traitement ñi nga xamante ni dañoo am impuissance sexuelle éjaculation précoce maanaam daal lépp luy jàngoro jëm si wàllu kër gi delloo ma samay 18 ans du ca morom ndax secret yéen ko mooñaale lépp doon ay plante naturelle bàyyi ko suñuy gàncax waaye tamit ñu mooñaale ko ak ay tur yàlla macha allah delloo ma samay 18 ans traitement efficace la benn yoon nga koy jël ba faw nga raw waaw delloo ma samay 18 ans moo lay gunge dama ni looy gën a jëm mag di gën a dellu ans kenn dong moo ko fi jàngeen jëf mbokk internet info 221 ñu àddu ak ci xibaar yi mbiru Ousmane Noël Dieng la ñu àddu wax moom mi nga xamante ne dañu ko woo nag niki altine fale ca section de recherche moom responsable politique bi nekk ca Kaolack Ousmane Noël Dieng daal dinañ ko convoqué fale ca section de recherche bu gendarmerie bu Colobane loolu nag dafay bokk rek nag ci déféré ab convocation bi nga xamante ne wóor nañ ko loolu mi ngi am niki nag bu 10 heures jotee lañ ko fay xaarandi li nga xam ne rek moo waral ñu daal di ko tekk ba tey ji xamaguñ guñ ko waaye rek xam naa ne daal dina dem wuyu ji leneen ci xibaar daal dina bokk ci lu jëm ci accès ak financement PME ak Ousmane Sonko daal na dalal vice président bu banque européenne bu investissement premier ministre Ousmane Sonko nag dina dalal niki juma ji te ji juróom-benn fan ci weeru septembre kii di monsieur Fayol vice président bu banque européenne bu yor wàllum investissement ànd ceeg monsieur Jean-Marc Pisani di ambassadeur bu union européenne fii ci Sénégal solo si rek ndaje boobee moo di fas yéene weccante xalaat ci naka la ñuy def rek ngir fi accès Sénégal daal di am accès ci financement jëm ci petites entreprise maanaam PME yi ndimbal soutien la boo xamante ne union européenne ak yii di ñoom ñoo koy def jaarale ko ci initiative bi nga xamante ne ñu ngi ko duppee Global Gateway visé dafay renforcer lu jëm ci wàllum koom ci réewum Sénégal ak réew yi nga xamante ni seq nañu ñoom.